incha allah ñu waajal waajal bi maanaam commencé waxtaan bi tur bi. Oustaz Seydi bi incha allah ñu ngi ñu ngi koy jox micro bi incha allah.
mën naa ko tey affaire muskila affaire muskila amul benn problème أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala jaamu yàlla bu mag bi ñuy def te mooy fàttalante sunu wàllu diine yàlla nañ ko yàlla nangul sunu jotaay bi yàlla na ko yàlla boole ci jotaay yi mu nangu ginnaaw loolu fàttalante ak mbokk yi ci tomb bi mooy agression culturelle bi nga xam ne dafay am axiru zaman xam naa sax mbokk yi dañuy naan nañu taamu waxtaane agression culturelle ci axiru zaman waaye muy loo xam ne fekkoon na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fàttali woon ci julit ñi di leen xamal suñ demee ba àddina di waaj a jeex lan mooy xew ci àdduna al rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy yonent yàlla muhammad dafa fàttali jullit yi ñaari melokaan ñaari anam ci ñaari mbir pour jullit yi bàyyi ko xel pour préparer àllaaxira mu nekk ay màndarga yu ndaw ak ay màndarga yu mag yonent yàlla muhammad mu ne leen su ngeen fekkee lu mel nii bu ngeen dundee ci kaw suuf ba lu mel nii ngeen teg ci bët wala ngeen fekke ko bu yeboo ngeen préparé xam ne àllaaxira jege na xam ngeen doomu aadama day tukki dafa ñëw ci àdduna di nekk tukkikat wala jóge àdduna jëm àllaaxira waaye voyage boo gis nit di ko tukki ca yoon ya muy jaar di dem dina am ay màndarga ay mbir yu koy won ne mi ngi waaj a yegg fi mu jëm depuis bu mu tàmbalee di dem ñun dañu ñëw àdduna war fi jóge dem barzaq war a jóge barzaq jëm àllaaxira yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam li ñu woon li ñuy woon ne jege si nañ àllaaxira ak ñun soreetul yonent bi di lim ay mbir naan nangam def ci bokk nangam def ci bokk nangam def ci bokk nangam def ci bokk pour jullit ñi mën a préparer nu ñu dajeeg seen borom mbokk yi ci yàlla waxtaane tomb yu mel nii day jëriñ ab jullit boo xam ne xam na ne indiwul boppam ci àdduna day dund day dee te bu deewee dajeeg yàlla te bu fekkee dafa dajeeg yàlla te da ko doon mooy sikki nekku ci ne yàlla dina ko fudd moo tax alxuraan nañu perte na ñu ne ko ñan mu ne alladina kadabu bi liqaa illah ñi nga xam ne dañoo weddi ne dana ndajeeg yàlla ñooñu perte nañ alxuraan wax ñu ne ku mu wóor ne guddi wala bëccëg a ngi ñëw di nga dajeeg yàlla prépareel man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal maza amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahad ku mu wóor ne bëccëg a ngi ñëw wala bis dana la yeew ba mu dëgër wàcce la sa kawlal génne la sa kër yóbbu la ci morgue bi sang la sang la yeew la yóbbu la ba ci armeel yi gas ba mu xóot suul ne yàlla ñëwal waajaa ngi nii loolu ku mu wóor dafa am lu la war mooy ngay bàyyi xel sa borom mbokk yi yont yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moo doon wax ak saxaaba yi bokk na ci wax yi mu leen doon wax moom yonent yàlla muhammad ci hadis boo xam ne abu musa al ashari moo ko solo moom yonent bi mu ne bayna yaday saa fitnan ka qitai lleyli lmuslim yusbihu rajulu fiha muminan wa yumsi kafiran wa yumsi muminan wa yusbih kafiran alqaidu fiha xayrun min alqaim wa alqaimi fiha xayrun min almaashi min almaashi yonent yàlla Muhammad mu ne maa ngi ni toog septième siècle maa ngi gis fitna maa ngi gis musiba bu ñuul kukk bu mel ne daggitu xaaju guddi ci ay fitna yoo xam ne yonent bi nee na dafa lëndëm ba mel ne xaaju guddi daggitu xaaju guddi moom yonent bi mu ne fitna yooyu sax pour ñu xam ko ak taraayam ak danger am mu ne nit da ciy xëy nekk jullit balaa ngoon mu nekk yéeféer nit ngoonu nekk jullit balaa bët set mu nekk yéeféer xam nga ne loolu bu ko nit déggee loo xam ne da ngay xëy nekk jullit amaana sax mën nga julli ji fajar ci jàkk ji bi ngay génn sa kër huit heures anta muslim yow jullit nga mais balaa ngoon tàkkusaan jot nga nekk yéeféer wala ngoon jot yaa ngi nekk jullit balaa bët set nga nekk yéeféer yonent bi nee na bu ngeen demee ba egg ci jamono ju mel noonu na ngeen xam ne egg ngeen ci màndargay bés pénc su boobaa nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne alqaidu fiha xayrun min alqaim waxtu yooyu ki ci toog moo gën ki taxaw ki ci taxaw moo gën kiy dox ki ciy dox moo gën kiy waaxu ki ciy waaxu moo gën kiy daw loolu lañ ci dégg mooy alqaidu fiha xayrun min al qaim ki ci toog moo gën ki taxaw ndax danger yëpp ñi mu attaqué ñi taxaw ak ñi toog ñi toog la danger bi gën a mën a alak loolu moo tax yonent bi di ñu bàyyi loo xel pour ñuy bàyyi xel yenn màndarga yi ak yenn melokaan yi ak yenn jëf yi ñun ñi nga xam ne dañoo xam ne dañuy dajeek suñu boroom pour ñu gën a takku gën a dëgër préparation boobu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam joxe na ay màndarga yuy wane ne jamono su yàqoo su jamono tolloo fii tey mu toll jullit ñi nan lañ ciy génne nan lañ ciy muccee yonte bi màndarga yi mu doon joxe bokk na ci riddatu aqwaamun kasir fi axiru zaman mu ne buñ demee ba àddina di waaj a jeex danañ gis lu bari ci ay jullit dootuñu nekk ay jullit dañuy murtat dañuy génn ci lislaam lan la ñuy yor tur kese kenn ci ñoom boo dajeeg moom pour nga xam ne ab jullit la fam nga laaj ko turam yenn saa yi sax bu loo waxee tur bi doo ko gëm lu dul moo woon la carte d'identité nga doog a gis Fatima wala Aïcha wala Muhammad wala Abdallah nga doog a xam ne kii ab jullit la mooy ridda dañuy génn di murtat loolu dafa bokk ci màndargay aaxiru zaman mooy nit ñi di murtat di génn ci lislaam yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa bés penc du taxaw xatta yalxiq qabailun min ummati bil mushrikin wa xatta yaabud al awsaan mu ne yowmal qiyaam du jot lu dul li ëpp ci xeet wii danañ nekk ay bokkaalekat waaye danañ jaamu xërëm gis ngeen tey li kenn mën tawee di ci réew mi mooy xërëm dafay samp ay reenam bokkaale sax fi dakk da ngay gis sax ku bokkaalewul dafay mel ne dañ lay dañ lay minimiser foog nga bokkaale pour nga bokk nit ñi lànk nañ wa ma yumin aksarahum billah illa wa hum mushrikuun ñu bëri du ñu gëm yàlla lu dul gëm gi ñu gëm yàlla dinañ ci boole bokkaale foog nga dégg yàlla ak yàlla ak su neexee yàlla ak diw bu neexee yàlla ak te loolu xam ngeen ne bokkaale la islaam daf koy tere yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa xata laa yuqaalu fi l ard laa ilaha illa allah mu ne bés penc di jot lu dul kaw suuf sii nit ñi danañ dem ba dootuñu mën a wax laa ilaha illa allah dootuñu yem ci bokkaale di génn ci lislaam waaye dañuy dem ba baatu lislaam yi dootuñu mun a ko wax comme ni ko yàlla bëggee bokk na ci baat boobu muy laa ilaha illallah wala fuñ koy wax duñ ko wax fu am importance da ngay dégg ñu koy sabaru mbër yi di ko bàkkoo ñu koy woy ci biir baar yi ci biir baar yi ci biir dansin yi ci biir naay këlëm yi nit ñi di ko fecc laa ilaha illallah sabar yi di tulli nit ñi di fecc semaine bi passé dañ ma yónnee sama email sama boîte benn ay jàng yoo xam ne dañ cee bind sabar gàmm ou sabar loolu lañ ci bind soo demee Sénégal ba léegi bu ñu ko dindiwul mu ngi foofu gàmm ou sabar dañuy laaj ndax li gàmm la wala sabar la xoolal ki ne damay gàmm damay jaamu yàlla damay def lu baax loolu dem bañ koy tëkkaleeg sabar ndax melokaan gu bon ci jigéen ñu sol lu bon ay góor yuy fecc sabar sabar yuy tulli ay tabala yuy rëkk caaxaan bu dul jeex maanaam loolu lan lay jural ab jullit bu am yaqiin mooy mu xam ne li yonent yàlla muhammad waxoon dëgg la ñu ngi ci yowmal qiyaam nit ñi seen diine lu leen neex lañ koy defee yow nga xam loolu pour nga xam fooy teg sa tànk balaa ngay tarxiis ànd ak mbalit moomu dee dem safara la taqumu saa hatta la yuqaalu fi l ard la ilaha illa allah bés penc lu jot ci kaw suuf lu dul nit ñi danañ dem ba baatu laa ilaha illa allah dootuñu ko mën a wax wala suñ koy wax ay caaxaan moo tax ñu koy wax tey xam ngeen ne ci suuf tey ci sunu réew da ngay gis ku yor ngandum kurus lu muy wax laay laay la laa laay laay la laa lay wax wala mu naan subaana laay ba ci nuyoo bi sax gis nga asalaamualeykum salaamaaleykum mooy asalaamaaleykum yal na ngeen dee yal na musiba këpp seen kaw naa baat yooyu dañuy dem ba julli ji dootuñu ko mën a ci loolu dafa bokk ci mandarga axiru zaman yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne bu ñu demee jamono ba kaw suuf jullit yi fi nekk baat yooyu muy baati lislaam mënatuñ koo utiliser mënatuñ koo wax na ngeen xam ne yéen a ngi ci njombaxtalu bés penc ci beneen riwaaya yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa xata yubaas dajjaaluuna kazzaabuun taqriban min salaasin kullun yazamu annahu rasulullah mu ne laa nabiya baadi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu ñu demee ba àddina di waaj a jeex di ngeen gis ci kaw suuf lu tolloog fanweeri fenkat feeñ kenn ku nekk danaan yonent laa yàlla ma yónni kulul yazaamu annahu nabi mu ne laa nabiya baadi maa ngi leen di yëgal yéen jullit ñi bu leen déglu kenn gëm ne moom yonent la mu ne yonent dootul am sama ginnaaw man yonent yàlla muhammad yàlla tëj na ci man yonent gi keneen dootul nekk yonent xam ngeen loolu tey ci Sénégal am nañu ay yonent li métti ci réew mi mooy ku woote rek am ku la wuyu kenn dong moo fi woote doo kenn du la wuyu mooy kuy wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah alquran ak sunna du bari de waaye caaxaan fo diine boo xam ne ay sabar la ak ay kappar ñi fecc tàccu naan sàngara mandi boole koog laa ilaha illallah ñëpp ñëw loolu nag du diine loolu fola moo tax alquran di ñu wax ne allazina taxasu diinahum lahwan wa laiban xoolal ñi nga xam ne seen diine lan la fecc ak woy yooyu ay mandarga la yoo xam ne yonte yàlla muhammad alayhi salaatu salaam joxuñu ko pour hasard mais daf ñu koy jox pour ñu xam fu ñu teg suñu tànk parce que ay jullit lañ dañuy dee dajeeg yàlla. bokk na ci mandarga yooyu yonent bi doon joxe mooy nuqdatu uraatul islam. islam alqawaid alshar'i la ay ponki pas-pasu l'islam la ay ponk la fan lañ ko jëlee Muhammad moo ñu ko indil fan la ko jëlee mu ngi ko jëlee ci yàlla alqawaid alshar'i allati jaana biha Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min indillah qawaid yooyu nga xam ne mooy ponk yi julli koor azaka dem Màkka atte yooyu ngeen di gis yonent nee na sallallahu alayhi wa sallam jullit ñi dañ koy jàpp benn par benn di ko daggati di ko sànni mu ne awaluha alhukmu attewoo diine la ñuy njëkk a bàyyi kenn dootul bëgg a nekk jullit kenn dootul bëgg a attewoo lislaam tey ci kaw suuf lu dul ku yàlla yërëm koo woo ne ko kaa ñu atte la ci diine mu ne ko dañuy dagg sama loxo wala dañuy dagg sama tànk wala dañ may rey wala dañ may tere nangam wala dañ may tere def nangam izan fama alamatu imanina izan alaysa min al imani an tu'mina bima unzila ilayk est ce que bokkul ci ngëm jullit bi li yàlla wàcce ci moom mu nangu ko ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcce ci yéen te mu bàyyi ko ci seen borom qulu amanna billah wa ma unzila ilayna gis ngeen la budda ñu gëm li yàlla wàcce ci ñun te mooy alquran du leneen moo tax yahud yeeg nasaraan yi doon wax ne gëm nañ yàlla yàlla daf leen wax ci suratul baqara fa in amantum bi mis fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw su ngeen gëmee li yonent yàlla muhammad gëm moom ñi mu àndal kon yéen gëm ngeen yàlla ah ñun nag tey ñun julli di est ce que ñun gëm nañ li muhammad gëmoon ak sahaaba yi hal nahnu amanna bi misli ma amana bihi muhammad wa ashaabuhu hal amanna bihi est ce que ñun gëm nañ li muhammad gëmoon mook sahabaam yi li ñu nekke woon est ce que ñun gëm nañ loolu kon dafa bokk ci ponku ngëm yi ci manraga yi wane ne yowmal qiyaam jege si na mooy fecc pas-pasu lislaam yi yonent mu ne awaluha al hukmu li ñuy njëkk a bàyyi mooy atte kenn dootul atte woo lislaam te yàlla wax na ci alquran inil hukmu illa lillah wa man ahsanu min allahi hukman li qawmin yaqiluun yàlla tabaraka wa taala mu ne ana kan moo gën a rafet yàlla atte alquran dafa weddi képp ku gëmul yàlla mooy ku nga xam ne day atte woo ludul quran mu ne saaniha assala su ngeen bàyyee atte li ngeen ciy teg mooy julli tey da ngay dégg ay jullit yoo bokkal réew bokk ak ñoom dëkk ñu ne la ñun ay jullit lañ mais ñun duñu julli man jullit laa mais du ma woora damay joxe ndogu ci weeru koor gi gisoon ngeen am na ñoo xam ne foo tourné gis ay mbana café kooku ne du ma woor man damay joxe ndogu kenn man du ma julli man julli wàcceel nañ ma ko kenn màkk jar sa dem parce que toxal nañ la fa nekkoon mi ngi fii gis ngeen saaru wax yooyu yooyu ay kufru la ku julliwul yéeféer nga képp ku woorul te mën ko wér këng lànk bañ ko def kooku ab yéeféer la ku am alal lànk bañ a aji màkk kooku ab yéeféer la fekk gëmu leen pas-pasu lislaam yooyu du ñu nekk jullit mbir yi ay farata la ku ko def jullit nga ku ko bañ a def ab yéeféer nga inna al ahda allazi baynana wa baynahum as-salaa man taraka as-salaa faqad kafar yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ñun ak julli ak yéeféer yi li nekk suñu différence lan moo ñu tàqale mooy julli ku julli jullit nga ku julliwul yéeféer nga ak ku la mën a jur ak foo mën a dund ak foo mën a nekk soo julliwul rek ab yéeféer nga jullit day julli waaye julli ci anam yiñ la ko sante ci anam yiñ la ko waxee ci anam yiñ ko sàkkoo ci yow ci anam yiñ ko bëggee ak ci waxtu wi nga xam ne moom lañ la sant nga julli ixwatal iman mbir yi lekk lu simple mbir yi nekk lu ndaw mbir yi diine la da ngay gëm yàlla imma shakiran wa imma kafuuran gëmal yàlla wala nga nekk ab yëfir mais l'islam amul ngarale afa tuminuuna bi baadi alkitab wa takfuruuna bi baad fama jazaau man yafalu dalika minkum illa xizyun fi lxayati dunya wa yowma alqiyamati yuradduuna ila ashaddi alazab wa ma allahu bi gafilin amma taamaluun yàlla mooy wax ak ñun yàlla nee na ndax da ngeen a bëgg a gëm lenn ci l'islam gëm li bàyyi lii loolu ngeen bëgg li neex ay tabaski ak korité nga xam ne lekk yàpp la yéen ñëpp ngeen nekk ay jullit suñ ne yàlla li la wax al amal ngeen ne non loolu dafa metti ah déedéet kon duñ nekk jullit islam amul def lii bàyyi lii da ngay gëm lépp mbaa nga bàyyi. munoo julli ne man du ma woor munoo woor ne du ma julli munoo julle ko woor ne maa ko bokk ci déedéet da ngay def li la yàlla sant nga nekk jullit defoo ko nga nekk yëfe munoo ngarale yaa ayyuha alladina amanu udxulu fi silmi kaffa e yéen ñi gëm yàlla dina ji dugg leen ci lépp amul ngarale da ngay weex tàll mbaa nga ñuul kooku kooku mooy yenn ci ay mandarga yu nga xam ne bokk na ci bokk na ci encore istihlalul xamr wa tasmiyatuha gayri ismiha daganal sàngara tudde ko yeneen tur gis ngeen tey jullit yi maanaam tey fii ñu toll su fekkoonte ne du jullit ñi ñooy naan sàngara si usine bi tëj na jullit yi bu doon na naan sàngara si kon usine bi tëj na mais jullit yi ñooy ivorogne yi ñooy mandikat yi te xam ngeen sàngara ay texte la ci alquran ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru walansab waladlam rijisun maza min amali shaytan fajtanibuhu laallakum tuflihun yàlla mu ne ee yéen ñi gëm yàlla gis nga baatu iman la leen yàlla woowee ya ayuha alladina amanu borom bi ne innama alxamr naka sàngara suñ ne sàngara nag kenn jàpp ne mooy li ñuy naan ci butéel bi kese déedéet li ñuy foon sàngara la di mandiloo nit bi ñuy pikiru sàngara la bi ñuy diwoo sàngara la bi ñuy naan sàngara la ila axiri bi ñuy lok sàngara la ci ay xeetam alaaji Malik benn waaye dafa ñëw ne ko yàlla day gars yi de ñollu lañ waxoon moo araam ñollu te rek léegi gars yi moom yeneen tur moo am mu ne leen innama alxamru asnaafun maa bayna rikleesin wa sampaañin wa beer kulluha haram kon bi ñuy fon ci la bokk yépp sàngara la yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla na ngeen ko bàyyi moo carte moog damier moog yoote moog jeu d'hasard yàlla nee na na ngeen ko bàyyi ndax ngeen texe keroog ba aaya bi wàccee lan la Umar wax Seydina Umar allahumma ntahayna minhu yàlla ñun aaya ba muy jeex yàlla dana fahal antum muntahun Umar ne allahumma ntahayna minhu mbeddi Medina dañ koo këpp sàngara ba bi naaj bi tàngee ñi naan lool sax dañoo màndi ndax sàngara si ni mu tuuru yépp lañ këpp toj ndaal yi ñun hatta an ñun waa Sénégal 95 pour cent musulman ñuy tiitoroo l'islam di tiitoroo ay sëriñ di tiitoroo ay xalifa diine sàngara si na fi tas nit ñi di naan bay la nga ci mbedd yi ba pare bëgg nekk ay julit te yonent bi ne mudminul xamr ka aabidul wasan naan tab sàngara moog jaamukatu xërëm mooyam mudminul xamr ka aabidul wasan yonent bi nee na naankatu sàngara moog jaamukatu xërëm mooyam ñoo ne ci beneen riwaaya yonent bi mu ne ijtanibul xamr fa innaha ummul fawahish mooy tandiku leen sàngara ndax mooy ndeyu yu bon yi fa innaha ummul xabaa'is yëpp yu bon yonent bi nee na sàngara mooy seen ndey kon su ko defee mbokk yi ci yàlla fàttali yu mel ni lan la ñuy jëriñ mooy ñu xam fu ñu teg suñu tànk ñu jéem a góorgóorlu pour ñu nekk ay jullit ñu xam li yàlla santaane ñu def li yàlla tere ñu bàyyi. ñëw na ci beneen riwaaya yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa innaha miftaahu kullu shar sàngara mooy caabi lépp lu bon lépp lu bon ci àdduna sàngara mooy caabi bi su nit demee ba egg ci naan sàngara mooy egg na ci njombaxtalu lu bon am nga jikko mbaam nankatu sàngara am na jikko mbaam am na jikko xaj am na jikko ginaar xam ngeen jikko mbaam bi lan la boo ko doon dóor fii ba suba du dem am ngeen jikko ginaar gi lan la ñeme naa fekk jàkk ca basan ya mu def fa lim fay def jikko xaj bi mooy lan mooy ñeme naa sëy ak yaayam léegi looy dégg ku drogue yaayam ku màndi dóor papaam da ngay dégg benn waaye mu ne dama naan tat wax paa bi raay tat laay def wax paa bi raay te moom bi mu ne cocc mënul wax raay mu naan dama naan tat wax raay yow bi nga normalee mënoo wax lu nit ñi dégg ñaata ñaata xale yu góor ngeen dégg ñuy wax loolu tat laay def wax paa bi ngeew mbokk yi loolu te li tax tey dëkk bi mel nii Sénégal gi yëpp nit ñi di jiiroo sàngara si lan moo tax mooy yéeféer yi xam nañ ne jullit yi kenn mun leen a bàyyiloo julli kenn mun leen bàyyiloo lislaam mais dañ leen di fexe ñu nekk ay mauvais musulmans ay jullit yoo xam ne dañuy julli di njaaloo di woor di njaaloo di naan sàngar di sol col gu bon xoolal tey xoolal xale jigéen yi bu waxtaan bi jeexee léegi boo jaaree fi Corniche sa yaram day daw te ñëpp koo laaj noo tudd du la wax turum nasaraan yëpp turum jullit mbokk yi yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na salaasatun qad harama allahu alayhi aljanna mudminu alxamr wa aqun li walidayhi wa dayuus wa huwa alladi yuqirrusu fi ahli wa fi riwaya allazi yarda alxubusu fi ahli yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ñetti nit duñ dugg àjjana kenn ci ñun toog fii bu yeboo mu bàyyi xel ñetti ñooñu pour balaa mu cee bokk ñetti nit yonent bi nee na duñ dugg àjjana te yonent bi ñooñu mu ne duñ dugg àjjana képp ku xalaat ci xelam ne ñooñu danañ dugg kooku moom du dugg yow mi bëgg a xalaat sax ne ñooñu danañ dugg yow doo dugg kon bu yeboo ñu bàyyi ko xel ki ci njëkk yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na mu duminul xamr naankatu sàngara kooku dugg àjjana ñu ne ko akkan mu ne wa aqun li walidayhi ak kuy dënge ñaari way juróom koo xam ne sa ndey ak sa baay ñu ngi dund nga leen di dënge di leen jaay dëgër bopp di dóor aka wañ aka poñe aka gëdd aka arsale aka xoqatal yonent yàlla Muhammad nee na ku def loolu da dugg àjjana te tey xam ngeen ne ci lañ toll ci Sénégal ay nit yuy dóor seen baay ay nit yuy dóor seen yaay ay nit yuy xas seen yaay te ndey ak baay jàngeen alquran wa wasayna al insana bi walidayhi jàngeen wa qada rabbuka an la taabudu illa iya jàngeen hadis ridallah fi ridal walidayn jàngeen aljanna tahta aqdamil ummahat ndey ak baay ndénkaane lañ yonent bi nee na ñett ñi duñ dugg àjjana kii dënge ñaari way juróom ak naankatu sàngara ñetteelu nit bi mooy borom kër goo xam ne sa waa kër bu ñuy def lu bon nga daan ay xale lañ bu ñu màggee mu dañ wala sax lu bon li yow yaa dem jëli ko indi ko ci kër gi allazi yaqirru suuf fi ahli yonent bi nee na borom kër gu mel noonu du dugg aljanna kon bokk na ci yàqute jamono ci màndarga yuy wane ne aaxiru zaman lañ nekk mooy sàngara su tasaaroo te xam ngeen ne sàngara ci lislaam dafa haram ab état wu lislaam ab état bu boo xam ne lislaam lañ gëm kenn du fa jaay sàngara mais xoolal Sénégal dañu ne pourtant dañu ne ay jullit lañ de mais nit tey bu buggee ubbi baar dañuy dem may ko kayit ne ko am nga droit jaay sàngara loolu moo tax gis ngeen li ngeen war a xeex du lii bayaan yi c'est très baax na de conférence yi c'est bien beau mais xam ngeen la ngeen war a xeex pour ngeen am état islam pour mbon gi ngeen di sans état islam fii ba suba nit ñi dañuy naan fii ba suba nit ñi dañuy njaaloo fii ba suba nit ñi dañuy carte fii ba suba nit ñi dañuy gis ngeen tey lan ngeen dégg ñuy wax ci rajo bi benn kër bu nekk almadi yéen dañ fa dañ fa violé ñetti nit ñaari xale jigéen yi fa dugg ñu ne ba ñuy génn génn ñu seen ndaw loolu la ñu wax ngeen dégg ah foo dem ci dëkk bi loolu la ñu nit ñi di jooy njabar nga dégg ñu ne veneen bi dañ paasul ñaari xaj yuy dund gis ngeen yu mel noonu état moo ko mën a régler état boobu nag da ngeen di fal ñu baax ñu gëm yàlla ngeen bañ a fal ay nit yoo xam ne dañ leen di wax man franc-maçon laa woon léegi nekkatuma ko man lii laa woon nekkatuma loolu ngeen fal ay jullit yu gëm yàlla gëm Seydina Muhammad ñu defal leen seen réew wama 2012 minkum bi bàyyi mbokk yi bokk na ci yàqute agression culturelle ci axiru zaman istixlaalul maazif wal xariir wal xamr wal maazif wal xamr yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bokk na ci daganal musique ak suwa ak njaaloo ci hadisu bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne inna allah baasani rahmatan wa hudan lil alamin baasani liyamhaqa al maazif wal mazamir wa amra al jahiliya rawahu ahmed yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam nee na yàlla mooy ki ma yónni man yonent yàlla muhammad ma nekk yërmande pour xeex xeet wi ma nekk njub pour xeet wi yàllaa ma yónni pour ma jële fi musique ak ay woy ak mbiru ceddo yàlla ma yónni ma nekk njub hudan wa rahmatan lil alamin moo tax yàlla ne wa in tuti uhu tahtadu yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin man yàlla maa la yónni nga nekk njub pour xeet wi ku la topp jub ku la topp jub lu tax wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yàlla ne ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yow yërmande nga pour xeet bi waaye yàlla yónni ko pour mu jële fi mbiru ceddo mbiru ceddo lan mooy mbiru ceddo mooy yi ngeen di gis tey mu am nit ñi nekk ay jullit ba pare nekk ay ceddo koo sax koo ci wax sax pour mu bàyyi loolu da ngay dégg mu ne la non man samay maam ay ceddo lañu woon ñun suñuy maam ay ceddo la ñu woon sa maam bu nekkee ceddo yi waroo nekk ceddo parce que sa maam l'islam leerul woon ci moom munoo nekk jullit nekk ceddo munu nekk da ngay nekk jullit rek wala nga nekk yëfër ceddo mooy jaahil mooy ku amul diine loolu mooy ceddo saa yoo noppee nekk jullit ab jaahil nga musiba dal na la yonent yàlla Muhammad wax na ci beneen hadis mu ne yàllaa ma yónni pour ma jëlee fi mbiru ceddo ak musique bii ngeen di gis ñëw na ci beneen hadis mu ne iyaakum wa istimaai almaazif walghina fa innahuma yunbitaani nnifaaq fi lqalb kama yunbitu lma albaqla maa ngi leen di mooy tandikuloo déglu musique ak ay woy ñu ne ko yonente bi loolu lu muy def ne day saxal naa féq ci xol comme ndox ñi muy saxale ñax gis nga ndox bu yàggee taa buusewul weer ñaari weer ñett boo ñëwee fekk ñax sax ci foo gis déglukatu musique naa féq la soo ko ne yàlla nee la mu ne la waaye jamais mu nangu moo tax ñu koy tere ab julit ba pare day rey xol da koy wowal ndax yonent yàlla Muhammad moo ko wax ba ñu laajee imaam yi xam ngeen ne ci islam ñeent ñii ñoo gën a siiw ci imaam yi imaam Shafii Abu Hanifa Ahmad ak kan ak kan Malik mooy ñeenteel bi muy sëriñu waa Sénégal imaam Malik bi ñu laajee Abu Hanifa musique lu mu wax simaul agani fisq wa talazzuzu biha kufru mu ne déglu musique bandi moo koy def mu ne ku ci kontaan mu ne kooku yéeféer la simaul agani déglu musique ñu ne am mu ne fisqun kàccoor la kàccoor rek moo koy def mu ne watala zuzu bi xaana ñu ne ko am mu ne kufrun ku ci kontaan mu ne kooku yéeféer la kanti ñun fii toog fii di dëgg sama wax moo bëgg dee fii ñu musique sa dëj léegi di sa loxo te kenn yëkkati loxom bi jigéen ñi naan ko yëkkati loxom voilà kon xam ngeen ne baaxul kan pourquoi ngeen koy def ci ngénte lu tax ngeen koy def ci ceet yi lu tax ngeen koy def lan weddi yàlla rek foo gis ku koy déglu ahmad moo imam abu hanifa moo wax loolu malik lan la wax dañ ko fekk ci jàkk yonent bi mu toog su daan jàngale jàkk yonent bi day nekk ndey joor su waxee ba ci yàgg mu jël loxoon ndey jooram bu màgg bu sell boobu mu ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haazal qabr mu jël loxo bi teg ci bàmmeel bi ne waxu ku nekk danañ ci sikki sàkk ba mu des waxu yonent yàlla muhammad kii lu mu wax rek noonu la su teree dañuy bàyyi su waxee dañuy jëf ñu ne ko sëriñ bu mag bi yow imaamu malik imaamu daaril xijri laa yufta wal maliku fil madine loo xam ci musique mu ne laa yasmahu indana illa al fusaq mu ne kàccoor yi rek ñoo koy def ci ñun jullit bu ngeen gis mu koy def ñu ne mu ne kàccoor la mu xam ñu yenoo ko ci kër gi ci jàkka ji yóbbu ko ci kër gi ñu koy sotti ndox di ko bës ba mu ximmiliku mu naan hal yasmauhu muslim ndax ab jullit dina ko déglu hal yasmauhu muslim est-ce que jullit dina ko déglu ñun nañ xool suñu bopp nañ xool suñu bopp tey xam nga lu gën a rusul mooy sunu kilifa diine yi sax dañ leen utal ay waykat da ngay dégg ñu ne kinne maam Bamba wala maam Bamba ni mu toll ñu utal ko kinne alaaji maali ñu utal ko jaal sëñ Fall ñu utal ko ndongo kon ça veut dire que ñooñu léegi bu ñu doon dund dañu déglu loolu loolu loolu la wax ji mu nuru lu xaraam loolu naka la ñuy jëlee kilifa di ko ko tuddee parce que mbon parce que yàqute te kenn du wax nag ku wax rek fi mu nekk nii ñu takkal la fulaar bu xonq nga nekk liste rouge te ñoo gën a tey ñoo gën a xam ne lu araam la dara daganu ci kenn ci ñun bëggul sa bisu dëj ñu yendoo animé musique même waykat bi bëgg ko moom mii way di génne disque d'or yi bëgg ko boo ko newoon sa bis incha allah bis boo deewee sa bisu dëj bu ñu lay suuli dañuy jël benn rajo teg ci baas yi yóbbu la armeel yi ak bi nga amee disque d'or ba ñuy yegg boo ko waxee loolu dana danaan la yow yow sama noon nga ah wala kon nañu bàyyi xel suñu dund mbokk yi jamono dëkk bu yàqu bu mu yàq suñu dund alaykumu anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum gëm leen seen diine màtt leen kook seen dëgëj su nit ñi yàqooy nu lu ñu yàqu yéen nit ñi duñ leen lor alaykum anfusakum laa yadurrukum man dalla iza htadaytum soo gëmee yàlla gëm yonent yàlla muhammad màtt ko ak say dëgëj su dëkk bi yëpp doon déborder ci mbon yow duñ la mënal dara bokk na ci màndarga yooyu hadisu abu daawud yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluuna alxira walxarir walxamr walmaazif yonent yàlla muhammad nee na dina nekk ci sama xeet ba mu koy wax ay jullit ya taxoon muy wax yëféer yi taxuñu woon ndax min ummati la wax min ummati ana muhammad min ummati la yakunanna min ummati dana nekk ci sama xeet ay nit yoo xam ne dañu naan ñoom ay jullit lañ ngay nga leen di gis ca sàppe jullit yi ñu am ay turu jullit nekk ay góor ak jigéen waaye yastahiluna xirra dañoo daganal njaaloo koo leen gis ñu ngi njaaloo guddeeg bëccëg kenn ci ñoom du xëy suba ngoon lu dul dana njaaloo tey loo dégg njaaloo ñu ne Sénégal ñu ne la sëru Lagos la wulis boobu fekk ko ci waaw moom la ñuy tiitaroo ngénte boo gis mu xumb Sénégal li ëpp ngénte njaaloo la dangay gis nit di tiitaroo doomu njaaloo nit di tiitaroo dama ëmbal jigéen di tiitaroo dañ maa ëmbal ëmb ba pare bàyyi ba naaj bi taa nga génne sa koll jaar ci mbedd mi génne ko ne nii ñu naan xoolal diw dañ ko ëmbal mu naan waaw waaw njëkkewu ma ko fi te duma ko mujj du man kenn dëkk bi yëpp la yastaxinuna alxira dañu daganal njaaloo tey du gàcce du gàcce tey xoolal du gàcce du gàcce kër yëpp looloo fi fees parce que kenn du wax paa bu reer tëdd ne léemu naa tëdd xale góor yi léemu ñëw xale jigéen yi léemu génn waaw xale bu jigéen bu doxi bu bët set boo xëyee dox dóor paa bi 2000 da ko taalal caayin maire bi maar dangay waar loolu moo xew tey suñu réew olof yi nag nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa boo nekkee ci kër gi bañ a jël sa responsabilité yàlla dina la poñe yowmal xiyam ndax waxoon na la qu anfusakum wa ahlikum naaran yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran e yéen ñi gëm yàlla musal leen seen bopp safara musal seen njaboot njaboot gi dañ leen war a aar kenn ci ñun amul droit di seetaan njabootam muy alku di dugg ci musiba boo xam ne ëllëg fu muy teere moom mooy kàmbu jahannama dañuy bañ ku ñu mere su la sa waa kër merewul yàlla mere la bu la sa soxna merewul yàlla mere la su la sa doom yi merewul yàlla mere la te meru yàlla moom xejul ci doomu aadama lan moo tax ñu bëgg kontaan te doomu aadama yi bëgg meru yàlla lu tax te wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurduhu in kuntum muminin loolu jàngeen ko ci laxdari jàngeen ko ci alquran jàngeen ci al ci hadis la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp ngërëmal mbindeef ndax meru yàlla yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yéen a ngi jëm jamono di ngeen daganal njaaloo jamono boo xam ne ku njaaloowul bokkul moom la ñuy tiitaroo doomu njaaloo yi ne selaw ci biir dëkk bi ñuy ngénte rek di teg ubbi ay auberge ay hôtel ay kër nit ñi dafa dajale di njaaloo di fay borom kër gi nit ñi tey xooluñu dara lu dul am amu àdduna jigéen di jaay boppam nga gis sax léegi góor ak góor góor ak góor ñun barki démb mu doon lañ jàpp ñaari ponkal ñaari ponkal suñu suñu ko ñaar ay góor ñaar ñuy waxaale waxaale billahi allazi la ilaha illa hu di waxaale waaye ba guddi ñu dugg ci benn arab benn waaye buy jàngale tëj fi muy jàngale ñu defe ne dem na nekk am na ñu nekk ci biir ñu bàyyi ba guddi ñu ñëw quatre heures ñuy waxaale deux mille trois mille ñaari góor ba ñu wax waa gars yi waa ji taxaw di leen xool mu bàyyi ba ñu simmeeku ba commencé mu doog a ubbi bunt bi ñu fëkk ak seen yaramu neen wala ay góor wala sax jigéen góor xam nga ne yenn yi yenn yi du question sax civilisé mais ak mbon la ak nar a dem jahannama mais góor góor lan lay ut ci yaramu góor lan la ciy jële mais salte doya di torox yàlla nar laa alak yóbbu la jahannama rek moo tax ataatuuna alfahisha ndax da ngeen di indi lu ñaaw lu bon loo xam ne kenn mësu koo indi ci àdduna góor ak góor góor lu muy wut ci yaramu góor lu dul yàqute rek ak yàlla nar laa lakk nga war a bokk ci ñi texee di mbokk yi foog ñu yeewu de jamono yeewu jot na jamono màtt sa diine ci sa dëgëj dafa jot ñu góor-góor lu xam ne ñun ay jullit lañu jullit nag mooy koo xam ne li yàlla santaane ram lay def li yàlla tere lay bàyyi loolu mooy jullit la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluuna alxira dañ daganal njaaloo ñu ne ko ñaareel bi mu ne wal xamr ñëwoon nañ ci sànq ñetteel bi mu ne wal maasif musique ñeenteel bi mu ne wal xariir xariir soie kon yii ay texte la yoo xam ne ki yàlla yónni woon ci ñun moo ñu koy jàngal ndax ñu xam fu ñu teg suñu tànk ndax suñu diine mën a wér ndax ëllëg bu ñuy dajeeg suñu boroom ñu dajeeg moom ci ay mbir yu leer mbokk yi bokk na ci màndarga yooyu ba tey ci taxawaay yooyu iksaaru nisa wa kasratu zina ñu jëlee ci xadisu anas ibnu malik radiallahu anhu wa ardahu qaal inna min asrati saa an yurfa al ilm wa yazharu al jahl wa yafsu zina wa tasrabu al xamr wa yuksiru al nisa wa yaqilu al rijal hatta takuna lil xamsina imra qimatu waxid rawahu tirmisi fi lfitan yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci màndarga yi bis pénc xam-xam jóge ci kaw suuf xam-xam kenn dootul am xam-xamul lislaam suñ nee xam-xam nag xam-xamul lislaam lañ ci nam
kenn dootul am xam-xamu diine
wala mooy li ñeen li nekk tey jullit ñi dañuy làmbatu rek inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim la muhtadin man fekk naa sama papa ak sama yaay jullit lañ rek man jullit laa am suñu la ne waaw diine ji loo ci mën nga ni non bokkal naa falaxee ak naasi ak lixlaas ñetti saar yooyu rek nga mën waaw parce que maa ngi ko gëjoon jàng sax bi ma nekkee jardin quoi nekk xale wala nit ñi toll tey ci diine diine joo xam ne xamuñ ci dara kenn nanguwul am xam-xamu lislaam parce que dañu gëm sax ne boo jàngee lislaam da ngay tardé wala nit ñi gëm kenn ci ñun du jëm doomam ne ko dama nga jàng alxuraan dama nga jàng diine abadan aduna rek moo tax gis nga dëkk bi mel nii du hasard de yàlla tabaraka wa taala du def hasard dëkk bi su melee nii nit ñi bu ñu yàqoo lislaam lañ xamul parce que l'islam day defar ay nit sibghat allah wa man ahsanu min allahi sibgha wa nahnu lahu abidun islam day defar nit cuubug yàlla la cuub l'islam bu defaree nit bu bàyyee bu ko bu génnee di dem nit kooku fu mu romb ñu ne est-ce que Abu Bakrin Saddiq lan moo ko defar Umar ibnul Xattaab lan moo ko defar Ousmane ibnu Affan lan moo ko defar yooyu sax dañoo sori jël leen seen kilifa diine yi ci réew mi Cheikh Ahmad Bamba Alaaji Malik ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñoom lan lañ jàngoon ba mel liñ mel fan lañ génnee ba mel liñ mel ci diine diine rek mooy defar nit leneen du defar dara dañuy sonal suñu bopp saa yu nit ñi néewee xam-xam comme tey musiba am mooy li am nii ñaareel wa yazarul jahl gis ngeen réer mooy li ngeen di gis réer ba ci biir jàkka yi da ngay dégg noddukat bu noddu 40 ans ashhadu sax mënu ko ashadu rek sadu laa ilaaha illallaah sadu laa ilaaha illallaah rek même ci taaya julli sax da ngay dégg salaamaaleykum taaya bu war a jeexal taaya nga dégg mu ne salaamaaleykum astagfirullah nee na saafarullaay nga gis ko yor kurus bu gudd lu muy wax saafarullaay saafarullaay saafarullaay saafarullaay saafarullaay ba kañ lan mooy saafarullaay saafarullaay boo koy wax fi ba suba doo am tiyaaba kenn du la baal say bàkkaar ndax li nga war a wax nga waxul astaghfirullah nga nekk fa naan saafirullah subhanallah nga nekk fa naan subhanallahi subhanallahi subhanallahi allahu akbar nga nekk fa naan jaa kubar jaa kubar luy jaa kubar wala ha kubar nañ jàng suñu diine alquran saar bi ci njëkk a wàcc iqra la wax iqra iqra iqra mooy lan jàngal boobu ki ñu ko doon wax am na 40 ans 40 ans la am ñu ne ko jàngal ñun ñi kat moo fi am 40 ans ah islam diine jàngale de ku réer bokkoo man kaana fi haadihi ama boo fi l axirati ama ku jàngul fi rek ëllëg yowmal xiyaam yàlla bokkuñ la yóbbu safara jàng mooy tax nga xam fooy teg sa tànk mooy tax nga mucc ci réer loolu Moussa doon wax auzu billahi an akuna min al jahilin yàlla ma yàlla musal balaa may bokk ci ñi réer yàlla wax na ko muhammad fasda bi ma tu'mar wa aarid anil jahilin yusuf wax na ko yàlla yàlla boo ma musalul ci jigéen ñi topp ma ma sëy ak ñoom su ko defee akunu minal jahilin jahlu baaxul yàlla lañ ci yàlla musal bokk na ci mu ne tasaaroo njaaloo tasaaroo njaaloo bu tasaaroo bokk na ci mu ne sàngara bu tasaaroo bokk na ci mu ne jigéen ñu bari te xasar ci biir dëkk bi di tamba mbalu rek comme jigéen ji kenn nangatu leen tëj nangatuñ leen toog ci biir kër yi li yàlla waxoon waqarna fi buyutikunna toog leen ci seeni biir kër lu mu guddi guddi nga dajeek jigéen xale bu jigéen muy dox lu mu guddi guddi lu mu guddi guddi nga dee xale bu jigéen buy tambaambalu ci mbedd yi yii yëpp ay melokaan la yu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam joxe ci yàqute aaxiru zaman suñ demee ba àddina di waaj a jeex bokk na ci encore mu ne intisaaru zina njaaloo bu tas yonent bi wax ci hadisu abu hurayra mu ne laa tafna hadihi l umma hatta yaaxuzu rajul ila mraa fa yaftarisuha fi tariq fa yakunu xiyaaruhum yawma idin man yaqulu law waaraynahuma waraa hada alxaait wa fi riwaya law itazaltum tariq en yàlla Muhammad nee na balaa àdduna di waaj a jeex di ngeen teg seen bët lu doy waar ñu ne yonent bi loolu lu mu mu ne góor dina jàpp jigéen bëccëg tëral ko ci mbedd mi war ci kaw mu ne xam nga ni buñ nit ñi buñ ñëwee li ñuy wax eh waay sam waay te nga koo dugal ci biir ginnaaw oto bi waaye sam waay te ngeen jóg ci digg mbedd mi mu ne ñu baax ñi kat ñooy wax loolu wala ñu baax ñi fa yaqulu xiyaaruhum yawma izin law waaraynahuma wara hadha alhaid waaye jàppal tànk bi ñu jàpp tànk bi ñu ñu dugal leen ci ginnaaw tabax bu pareegul bi ndax sax boobu mu nekk sutura loolu gis ngeen ko léegi nit ñi fan la ñuy séye ci mbedd mi ci mbedd mi waaw ci pono yi banc public yi pono yi da ngay dox ba fekk jigéen duñ tëral ci pono pono ñu tëral ko ci taabalu menuisier bu wàcc dem ñibbi ndax njaaloo bu tasaaroo yeneen bi nee na ñeneen ñi buñ ñëwee lu ñuy wax dañ naan waaji sama eh eh eh eh ñu ne waaji naa ñu ne waay yow jóg ci yoon waaye tamit nag law i'tazaltum tariq sallallahu alayhi wa sallam mooñu doon wax léegi kañ la ko doon wax septième siècle yéen tey ngeen ciy teg seen bët septième siècle la ko yéen di doon wax fuñ jëm moo tax yéen dañuy ne fi di jooy ay courant buy coupé dëkk bu metti gisaguñ dara ah yi ñuy jooy ci Sénégal yëpp du dara problème yi ngeen di jooy billaahi du dara c'est parce que nit ñi suñu moyen yàlla yàlla mu ne ma teg leen sama yar yi ngeen di jooy ci dëkk bi yëpp du fi jóge jafe-jafe yi seerte dund gi coupure courant ak yeneen ak yeneen yi ñuy wax yëpp ci biir kër yi jafe-jafe yi du fi jóge c'est parce que yàlla mu ne nit ñi saa yuñ ma moyen rek mat indil leen nit ku mel noonu mu leen di fudd yonent yàlla Muhammad nee na bokk na ci yàqute jamono su nit ñi weddee yàlla mu ne yàlla dina leen nattoo ñetti mbir bu njëkk mu ne yusallitu llahu alayhim sultaanan jaa'ir yàlla day teg seen kaw buur bu bandi mu leen di dóor guddeeg bëccëg luñ ci mun tus mu ngi ni loolu xadis la bu ngeen jógee ngeen wëri ko yusallitu llahu alayhim sultaanan jaa'ir ñu ne ko ñaareel mu ne wa yazilu barka min kasbihim seen dund yàlla day dindi barke bi dund bi amul barke xam ngeen nit ñaa ngi dundi mais dund lekk bi ngeen di lekk sax amul barke Sénégal ci boppam barke moo fi dañ barke loolu ñu naan barke kër yaa ngi ni barke amu fi nit ñaa ngi ni amuñu barke doom yaa ngi ni amuñu barke sëy yaa ngi ni amul barke xasar benn barke amul parce que barke la yàlla dindi ci mbir yi ngay gis ko am kër ba mu fees dalaki doom kenn du ko jëriñ nga gis waa juy liggéey ñu koy fay salaire du dul jeex du ko jëriñ parce que barke bi la yàlla dindi waa ji am ay kër yu ne gàññi dara du ko ci jëriñ waa ji am ay parking oto dara du ko jëriñ ci oto yi lu dul mu dee dem ci yàlla yóbbaale ay loxoy kese mbokk yi ñetteel yonent bi nee na yaxrujuuna min addunia bi gayri iman suñ demee ba dee jot nag nit ñi dañuy dee duñ yóbbaale ngëm yàlla ndax dee da leen di bett xam nga ne dee ku mu fekk ci soirée ku dee fekk ci baar ku dee fekk ci ab nga ci kaw jigéen wala mu fekk góor sa kaw wala nga ëmb dem ñu ëmbal la nga dem hôpital di am doom dee yow mi ngay dem yóbbaale nga ngëm yàlla te tey nit ñi rek ñaata sénégalais ñoo dee ci xeesal ñaata sénégalais ñoo dee mees mu ngi seen bopp ñaata ñoo dee yóbbaale ay ëmb yoo xam ne biir yi doom yi amuñu bàyyi ñaata sénégalais ñoo dee ci ay baar ci ñaata sénégalais ñooy dem sorti dee ci ay accident ñaata accident yi ngeen di dégg ñaata sénégalais ngeen dégg yu dee ci ay auberge ci ay hôtel ñaata di mooy yàlla ba dee fekk la ci te yonent bi ne yub as kullu abdin ala ma mata alay ku nekk fi nga deewee ngay dekki ku dee ci baar ci baar lay dekki ku dee ci njaaloo ci njaaloo lay dekki ku dee ñu ëmbal la ci loolu ngay dekki yub as kullu abdin ala ma mata alay wal muminu ala imanihi wal munafiqu ala nifaqi mbokk yi ñun ay jullit lañ ñun ay jullit lañ duñu dunde ni nu neex mais dañuy dunde saloo ni yàlla bëgg loolu mooy diine dunde ni yàlla bëgg waaye doo dund yow ni mu la neexee bokk na ci ci màndarga yooyu taaxuzu haasi l umma bi ma axasa al yahud wa nasaara yonent bi nee na bu ngeen demee jamono ba jullit yi tey ñooy toppandoo yahud yi ak nasaraan yi ñoo leen di toppandoo jullit ñoo xam ne seen lépp yahud yi ak nasaraan yi la ñuy toppandoo xoolal tey ci Sénégal la hawla wala quwata illa billah fan ngay gis jigéen ju mel ni yàlla bëgg di nga xëy yenn saa yi di dox suba ngoon doo dajeeg jullit bu sol colul islaam jullit bu jigéen col ku pon rek yaramu jigéen tey lan moo lan ngeen tudd gisul yéen ñi toog fi nekk ay góor question bi yéen laa koy posé yaramu jigéen tey lan ngeen ci gisul tey benn awra mooy nëbbu ci awra jigéen mooy awra bu mag bi leneen léppam ci biti dum ngay xëy jàkkaarloog bopp neen gis nopp gis lépp gis baat gis ween yi gis mbagg yi jumbax bi biir bi lépp pooj yi la xanaa awra bu mag bi de cër yi sax da nga koy gis ngeen baal ma ci baat bi yow ma dama koy wax de da ngeen ciy tëg ba ana diine ana kersa ana ngor ana jom kersa sax dafa jeex Sénégal te gis nga ku mel noonu tey boo ko gisoon ba nga bëgg a wax ak moom ne ko soxna si tey nga danaa la xoolal yaa ko xool de xoolu la yaa ko xool waaw loo doon def ba gis ko danga mën ta sajj sa xef lan la ba pare nag dang niiral benn dang niiral goo xam ne nga xam ne kii nitu jahannama la yeneen yàlla jubal yeneen yàlla wut woon dëgg mu wërsëgal ñu topp maanaam féeteerlu gi ñuy féeteerlu amul njëriñ de xam nga lu tax amul njëriñ dee ngi nii di ñëw mu ngi nii sunu kanam wallahi yàggul wallahi ay fan la rek ay semaine la rek ay weer la mi ngi nii di ñëw ñu ne la kirtin malakal mawti ne la kirtibte inna batsha rabbika la shadid fooy mujj ñëbb la ci morgue bi kenn du añ kenn du reer kenn du nelaw lu dul ñu suuli la moo tax féttërlu bi jaru ko di jaay yàlla dëgër bopp di ko wan ne yow da ngaa yàqu lu la neex nga def da ngaa libre yenn saa nga ne ku ne maam je suis libre hein man dama libre am naa nangami at lu ma neex def waaw dama koy dangal ba mu dang dangalal mun a koo dangal bis ba duggee bàmmeel ci ngay xam ni mun a dangal ba mu niiral mu ngi kar fekk la foofu foofu la dangal nekk fii dangal nekk fii waaw ndax sa dangal bi bu ñu indee ciseau dinañ ko xotti boo nekkee ci morgue bi nga dangal ba mu dang nga dee dangal boobu am nga ñuy ñëw ci morgue bi di la sang ñuy paaka la ñuy indaale wala ciseau buñ ñëwee rek dugal ci cat yi xotti mu deñ boobu day deñ moo tax dangul dangal bi mooy bi yàlla di wax ne xuzuuhu fa xulluuh summa aljahima salluuh summa fi silsilatin zaruha sabuuna ziraan fasluku foofu la dangal nekk yàlla bu ne ibnu abla ibnu abbas nee na yàlla bu ne malaaka yi jàpp leen waa ji mu ne juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo lay jiitoo ñoo lay jiiroo soixante-dix mille malaayika aaya bi waxul xushu de xushu xushu aaya bi waxul loole lan la wax xusu loolu jàmmu la jàpp leen ko borom bi nee na bu ko buñ ko jàppee malaaka yi buñ ko jàppee yàlla danaan yeew leen ko na ngeen ko yeewee chaîne boo xam ne soixante-dix mille mètres la alquran nettali ñu ci suratul bala suratul fajr wala yusiqu wasaaqahu ahad wala yusiqu wasaaqahu ahad yeew biñ lay yeew biñ ko yeew kenn ku dul yow wala yuazibu azabahu ahad mbugal gi ñu lay mbugal duñ ko mbugal kenn ku dul yow yeew biñ lay yeew duñ ko yeew kenn ku dul yow kon loolu su ko nit jàngee su ko nit xamee dafa war a góorgóorlu ci boppam mbokk yi adduna dafa gàtt àdduna lu gàtt la guddul moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su àdduna amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox moo tax Umar keroog ba mu duggee kër yonent bi mu fekk yonent bi tëgg tëdd ci benn basan ba yaramam bi dereetal Umar woo yonent bi ne ko te nga bàyyi ma woo jullit yi ñu ñëw kenn ku nekk ci ñoom
aleykum salaam jazakallahu xayran
kenn ku nekk ci ñoom daal di indi mbàjju këram ñu laal mbàjju bi tegale ko ba mu nooy yow yonent bi nga tëdd ci ndax fi nga tëdd dafa wow ndeysaan
wala Omar bu ngi yërëm yonent bi parce que yonent bi dafa tëdd ci basang ba yaram bi dereetal Omar nga yërëm yonent bi xam nga lu yonent bi tontu Omar yaa Omar maa lii wali dunya ma ana illa ka raakibin istazalla taxta sajara summa qaama fa tarakaha yaa Omar allah tarda lahumu dunya wala wala na al axira Omar ñooñu ngay wax buur yooyu ngay wax ñu ngi tëdd ci lu nooy man ak man ak ñoom nuróowuñu man damaa mel ne ku doon tukki man yonent yàlla Muhammad ma dox ba sonn gis garab bu féex ma toog ci noppalu noonu rek laa mel ku toog ku doon dox ba sonn gis garab bu féex nga toog ci noppalu soo jógee da ngay dagg garab gi yóbbaale wala da ngay dagg kër gi yóbbaale mbokk yi sikk nekk ci ne doo dagg garab gi yóbbaale doo buddi kër gi yóbbaale kon bu ñu àdduna wor bu ñu àdduna jay ñu gis tey lii mu neex nga nekk ndaw parce que am nga fanweeri at am nga fukki at ak juróom ngay tëb di bonde di cëppi cëppi di def lu la neex bàmmeel yow ne la sërëm di dugal la ci sa àdduna yàqu sa laaxira yàqu noos bépp boo noosoon boo duggee bàmmeel fàtte nga ko moo tax noos goo xam ne borom safara lay mujj amul benn njëriñ topp ci sàngara si topp ci naan bi topp ci dorog bi topp ci njaaloo bi di jaay sa bopp dugg ci nekk góor jigéen loolu ban njëriñ la am en tant que yow ab jullit loo xamante ne yàgg yàgg yàgg xam nga ne yow da ngay dee wala kenn ci ñun fi du dee ana kan ci ñun fi ku dul dee nay ko ci loxol fee ci ginnaaw jigéen ñi ku dul dee foofu nay ko ci loxol walaw ista alfa amin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr soo dundoon junni at ñu wisaal la yeneen junni at yàgg yàgg di nga dugg bàmmeel te bis boo duggee bàmmeel ak bàkkaar yooyu di nga rëccu. nan la nan la yàlla jàppale. su ko defee soo xamee loolu da ngay góorgóorlu ci li la yàlla sant nga xam ne àdduna yàggul lu néew la ay fan yu néew la gis nga waa àllaaxira buñ leen fekkee àllaaxira ñu ñu ñu ne ci biir bàmmeel yi ñu yee leen ñu fëgg bàmmeel yi ne leen jóg leen ñu jóg suñ leen laajee yéen ñaata at ngeen def àdduna da ngay dégg kenn ci ñoom naan la lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kenn naan man suba rek laa fa ñëw dee ñenn ñi dañ naan in labisna illa yawman man benn jour laa fa def dee te kooku am na fi téeméeri at ki naan in labisna illa yawman am na fi téeméeri at ndeysaan moo tax àdduna amul amul njëriñ yaa ngi dund léegi nga màgget léegi nga dee soo deewee rek sa àllaaxira taxaw ñu yenu la ci kër gi yóbbu la ci ba ci bàmmeel bi gas ba mu xóot bala ñu lay suul àdduna wax ak yow suuf si wax ak yow ne la yab nu aadam xarajta min at-turaab wa utta min at-turaab xarajta min at-turaabi bila zamb wa utta min aturaab wa kulluka zunub doomu aadama ci suuf nga génnee ñëw ci àdduna yaa ngi delluwaat tey ci biir suuf doomu aadama xam ngeen ne suuf la gis ngeen minha xalaqnaakum kon yow xam nga ne amoo importance parce que suuf nga minha xalaqnaakum ci suuf si laa tibb bind leen wa fiha nuidukum ci suuf si lañ leen di delloo wa minha nuxrijukum ci suuf si lañ leen di génne ëllëg yowmal qiyaamati kan doomu aadama amul valeur xam nga kañ ngay am valeur boo jaamoo yàlla génn nga ci suuf delluwaat nga ci suuf waaye bi ngay génn ci suuf di ñëw ci àdduna yaa ngi doon ñëw amoo benn bakkaar tey yaa ngi dellu ci biir suuf yaa ngi fees dell ak bakkaar gis nga bu suuf si waxee ak yow ba pare ba nit ñi dugal la ci biir bàmmeel bi bu ñuy ñibbi rek yàlla wax ak yow daan ne tarakuuka wa dafanuuk wa fi turaabi dafanuuk walaw zallu maaka ma nafacuuk walam yaqa laka illa ana wa ana alxayu alladi la amut ah doomu lay gaa yi day indi nañ la fi suul nañ la ñu ngay ñibbi yow doomu aadama nit ñaa ngi nii di dem léegi nag ana noos bi ana xarit yi ana mbokk yi ana ana ana compte banque ba ana alal ji la fuyloo woon ba ta- tataloo jaamu yàlla anam ana sa àndandoo yi ana ñu tey kenn du dugg foofu fee tëllif kenn ña nga ne dem tarakuuk wa dafanuuk bàyyi nañ la suul nañ la fan lañ la suul ba fi turaabi dafanuuk te walaw zallu maaka ma nafauka buñ fi toogoon sax duñ la jëriñ ndax yaa ngi ci biir ñu ngi ci kaw du la jëriñ yaa ngi ci biir suuf ñoom ñu ngi ci kaw suñ la fay def dara ku koy fekke kenn du ko fekke mbokk yi yàlla ne ña nga ne di dem buñ fi toogoon duñ la jëriñ tey bàyyeewuñ la kenn ku dul man gis ngeen kon foofu la ñuy mujjee ci kanamu yàlla gis nga instant boobu yàlla wax ak loo yow loolu su nit ñi di teg seen tànk di dem rek yàlla envoyé la ñaari malaayika ñu ñëw ci yow bu ñu ñëwee fekk la fi nga toog bu dee góor la ñu ne ko yaa abdallah bu dee jigéen ñu ne ko yaa amatallah jógal toog nga jóg toog ñu ne la maza kuntu taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad mi nga doon dégg loo doon wax ci moom daa nga dégg muhammad bi nga nekkee ci àdduna mu ne waaw daan naa ko dégg ñu ne loo doon wax ci moom mbokk yi xam ngeen Muhammad fan la tàmbalee ñun ba waruñoo réere turam waruñoo réere dundam waruñoo réere ay jëfam ay waxam fan la tàmbalee ñun bi nga juddoo ñu lay tudd ilibaan bi mu ñëwee noddu la def ci sa ndopp ndeyjoor noddu bi mu nobbee noddee turukan lañ fa wax laaj bu ma leen laaj la bi ñu noddee turukan lañ wax ashhadu anna muhammadan rasulullah liqaam bi mu jotee ñuy liqaam pour julli turukan lañ wax muhammad ci biir julli ngay taaya waxturu muhammad nga dee dugg bàmmeel ñu ne la muhammad moomu ñu la waxoon ci nodd ñu la doon wax ci liqaam nga doon julli di ko tudd ah muhammad moom mooy kan maza kunta taqulu ala hada al abdu muhammada muhammad loo doon wax ci moom allahu akbar yonent bi nee na amma al mumin fa yaqulu kuntu amantu bi annahu abdullahi wa rasuluhu wa annahu jaana bilhaq min indillah gëmoon naa ne muhammad lim ñu indiloon dëgg la mi ngi ko jële woon ci yàlla gëmoon naa ne dëgg la mi ngi ko jëlee ci yàlla su waxee loolu benn baat la ñuy dégg kaw asamaan naan sadaqa abdi sama jaam wax na dëgg lalal leen ko lali aljanna amal kaafir awil munaafiq bu dee waa ji naafiq la woon wala ab yéeféer la woon ñu ne ko loo doon wax ci muhammad mu ne kuntu laa adri laa adri laa adri xawma ko xawma ko xawma ko malaaka ne ko laa talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati xamoo yàlla boo xamati yonent bi nee na fa yudrabu bi metraqatin min hadid bayna uznayhi fa yasiihu sayxatan yasmauhu man yalihi illa al insi wal jinn yonent bi nee na bu ñu la laajee loolu dox ci Muhammad nga ni xaw ma ko danañ la dóor dóor boo xam ne ci sa diggante ñaari nopp yi yuuxu bi nga yuuxu lépp a koy dégg ba mu des nit ak jinne moo tax kon mbokk yi dañ leen góorgóorlu ñu bañ a topp àdduna ñu xam ne romb rek lañ fiy def fii dañ fay ñëw dañuy romb doomu aadama day dund ñetti dund da ngay dund àdduna dund barzaq dund yowmal qiyaam tey ñun ñu ngi àdduna am na ñu dem barzaq yowmal xiyaam kenn demagul kon ñun sunu àdduna buñ ko yàq saa yoo yàqee sa àdduna sa barzaq naqari sa barzaq su naqaree sa àllaaxira naqari kon ixwaan bu ñu yàq sunu àdduna lii ñuy gis tey ñu ñu koy taaralal ci poñetu àdduna ci yu bon ci yoo xam ne amul benn njëriñ kenn ci ñun di ci dugg di ko def xam ne ne baaxul waaye lu tax mu ci dugg pour poñetu àdduna xoolal làmb làmb bëri bu njëkk ba bu ñuy xas jigéen dañ naan ko loo alku alku alku war a jur mbëlëm làmb buñ doon xas jigéen démb loolu lañ koy wax maanaam jigéen boo xam ne da nga amoon doomu mbër yow da ngaa alku yow ku bon nga yow ku torox nga yow sa sëy amul barke démb loolu la woon xoolal tey paa yëpp koo wax ku ku sëlmal sa julli da nga naan yàlla na ma yàlla may doomu mbër jigéen ñëpp ku ëmb da nga naan yàlla na ma yàlla may mu nekk mbër te démb bu ñu doon xas jigéen loolu lañ ko doon wax ndax yàqute bu àdduna yàqu ndax poñetu àdduna ndax liñ ci am xooluñu dagan na xooluñu araam na xooluñu fan lañ ko jëlee xooluñu déedéet te yàgg naa ko wax gis nga combat yi ñu koy organiser producteurs yi ñan ñoo ci gën a siiw jox leen ma seen tur yi est-ce que am na doom buy bëri teg leen keneen bi am na doom buy bëri xanaa doomam bëggul ci millions yi déedéet waaye ñoom seen doom yi ñoom ñoom ay nit lañ ah ñaata millions la ñuy fay ci combat yi ay cent sax seen doom bëgg ko doo gis doomu ministre buy bëre doo gis doomu député buy bëre doo gis doomu xalifa général buy bëre yan ñooy bëre doomu baa doo lay rek dañ leen yeew dañ leen nekk ay jullit bu ñu àdduna jay bu ñu àdduna këf poñetu àdduna bu mu tax ngay mooy yàlla un million dix millions cent millions yoo xam ne ëllëg yowmal qiyaam biir jahannama lay tàkk ak yow man akala luqmatan min haram la tuqbal lahu salata arbaina yowman kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awla bi yonent bi nee na bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam yonent bi nee na safara moo ci yey alal ju araam soo ko lekkee boo jullee 40 jours yàlla du ko nangu 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu jàngeen histoire Saad ibnu Abi Waqaas Saad ibnu Abi Waqaas kenn la woon ci yaayam mu dugg ci lislaam yaayam ne ko Saad da ngay bàyyi lislaam mu ne ko yaay mënu maa bàyyi lislaam mënu maa bàyyi muhammad yaayam ne ko kon ci naaj bi laay tëdd ba dee te Saad dafa bëgg yaayam mu xam ne loolu moom mënu ko dékku mënul gis yaayam tëdd ci naaj bi di xaar dee te bëggul bàyyi lislaam kon léegi nan lay def mu daw dem ci yonent bi ne ko yaa rasulallah yow yonent bi sama yaay day ma nga dem tëdd ca naaj ba di xaar dee yonent bi ne ko luy sabab bi mu ne ko naa bàyyi lislaam naa la bàyyi yow muhammad rek aaya wàcc yàlla ne ko wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma sa ndey ak sa baay buñ la forcé ñu sant la lu yàlla diglawul bu leen topp saa yu ñu la digalee loo xam ne yàlla daf ko tere bul ko def ah kon léegi Saad du bàyyi lislaam du bàyyi Muhammad parce que aaya wàcc na xam ngeen Saad du wax mu ne yonent bi ñaanalal sama yaay mu tuub dugg ci lislaam yonent ñaanalal sama yaay yonent bi daal di yëkkati ay loxoom daan ne allahumma hdi umma saada yàlla yàlla nga jubal yaay saad mu ñaan ko ñetti yoon saad ibnu abi waqaas dem seen kër yëkkati yaay ji mu toog mu ne ko yaay ragalal yàlla gëmal muhammad yaay ji ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rek saad kontaan mu daw dem di bégali ji yonent bi ndax lan yonent bi ñaan na yàlla nangu ñaanam yonent bi ñaan na léegi léegi motagul 30 secondes yàlla nangu ñaan bi mu dem di waxi ji yonent bi sama yaay dugg na ci diini mu ñëw wax ko yonent bi ba pare léegi nag Saad daan ne yonent yow de gis naa ne léegi léegi ñaan nga rek yàlla nangu ko mu ne ko waaw mu ne ko yonent ñaanal ma man tamit bu ma ñaanee yàlla nangu ko ñaanal ma yàlla su ma ñaanee yàlla nangu yonent bi ne ko yaa Saad a turidu an takuna mustajabu daawa qaala naam mu ne ko yaa Saad atim mataamaka li ngay lekk na dagan li ngay lekk su daganee boo ñaanee yàlla nangu waaw booy lekk alalu njaaloo booy lekk alalu sàngara booy lekk alalu làmb alalu dorog nga bëgg ñaan yàlla may la mënul nekk te balaa ngay xam ne alal ju bon baaxul nga gudd fan balaa ngay dee torox alal ju bon koo gis mu am ko bul ko ñee yërëm ko billahi wallahi taalahi bu guddee fan torox yàlla moo ko wax inna allazina yaakuluuna riba laa yaqumuuna illa kama yaqumu allazi yataxabatu sheytaanu min almas baaxul yonent sallallahu alayhi wa sallam romb na ay nit laylatul isra wal miraaj seen biir yaa ngi rëy ba toll ne ay néeg kullama araadu an yaqumu saqatu wa qultu ya jibril man haula qala haula alladina yakuluna riba min ummatik yonent bi gis na ay nit yoo xam ne seen biir yi dañoo rëy ba toll ne ay étage saa yi ñu bëggee jóg daanu ndax biir yu ngan jibril tiit yonent bi tiit ne jibril ñi ñan la mu ne ko ñi ñooy lekkati riba yi ñi yoroon lekk lu bon ci àdduna kon lekk lu bon amul njëriñ alal ju bon amul njëriñ fu mu jóg yow du baax kon mbokk yi ci yàlla lii ma doon fàttali bi li ci jub ci yàlla la li ci manqué ci man mii la in aradtu illa al islaha mastataatu وما توفيقي إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته